que bi euh dañu finale final coupe du maire bu ñëwé ba ci final ben équipe ñu porte ko réserve malheureusement euh, mu japp donc ben équipe rek mo génn mu gagné euh, donc mom mom mom rek mo fi nekk ñu ni nañ ko jox coupe bi parce que c'est pas la première fois parce que amon na fi lu melni donc ñu jox ko coupe bi tay ji yalla def nak mu tombé ak l'ASC Yakar bi nga xamni mo dëkk Thialé fi nga xamni fi lañu ñu nekk ñu ni nag nañu ñëw sargal leen ànd ko ak waa zone bi ko ak suma euh, les adjoints au maire ñi ngi les conseillers ñi ngi fii ak euh, notable yi Thialé commune bi ñoom ñëpp les femmes de développement les hommes de développement les jeunes ñu ne nag nañu remettre trophée yi xale yi équipe yi nga participer nañu également ci nawetaan au moins quinze équipes équipe bu nekk ñëw ñu jox la sa benn jeu de moyen jox la sa ballon euh, l'équipe qui a qui a été finaliste qui eh, a waaw équipe bi nga xamee ni nii moom moo final moom itam ñu jox ko enveloppe enveloppe bi nga xam ne la gagné d'une euh, enveloppe de cinq cent mille xale yi nga xam ne ñoo doon war a jouer cadet comme football ñu kenn ku nekk ñu jox la benn enveloppe bu deux cent mille euh, boole ko ak sa jeu de maillot trophée bi ñu jox ko l'ASC Yaakaar di ñaanaat xale yi rek ñu gën a góorgóorlu mu am fair play dans la communauté de Taïba li am polo raisonnement ñàkk parce que c'est nous dans nous donc euh, war nañu mën a ànd boole suñuy doolee nu ñëpp ñu ànd pour l'émergence pour le développement de la commune de Taïba Ndiaye Taïba Ndiaye fi aw turam war nañ cee mën a góorlu accompagner tur woowu ba nga xamee ne nii jëpp ji day ànd ak wax ji nga xam ne Taïba Ndiaye de mën a jëm ci kanam jafe-jafe bi ci jiitu moo di ndox ndox moom wax dëgg yàlla ñun fi lañ ko fekk dañ ko donn waaye bi ñu toogee ñëwee ba léegi tooguñu président de la république ñoo ngi koy remercier di ko sant parce que bi ñu ko ko waxee rek la waxoon le ministre de l'eau kooko tim jox ndigal le directeur de l'OFOR ñu ne daañu commencé ndox mi château d'eau yi forage bi depuis le mois de juin mais ba léegi gisaguñu dara ñu jàpp daal ndox euh, daal mooy problème bu commune Taïba Ndiaye bi ci des yoon bi nga xame ni moo jogee route ñaay jaar Baal Diop jaar Taïba Santhi ñëw Ndoomoor euh, ñëw euh, astafurlah Taïba Ndiaye boobu tam yoon boobu wax dëgg yàlla ñu ko defaralee ndax gàmmu Tiwaawan nag bu xesee ñëw oto yëpp dañuy teggi les route nationales di jaar foofu pour mën a dugg Tiwaawan pour mën a ñëw di ziare bu ci des nag lampadaires yi digoon nañu ko ak ñu jàppale ñu également parce que ñu fi ëpp fii ay béykat la tey rek maa ngi eh, jokko ak benn kilifa bu mag mu promettre ñu ab chambre froide mu promettre ñu également benn magasin de stockage laakaar naa yooyu bu ñëwee daal li ci des commune bi ak li mu am akus néew dina accompagner yeneen yi les actions sociales le sport l'éducation, éducation ñoo ngi ciy def liñ ci man loolu mais li ci gën am solo daal bii moom mooy ndoxum Taïba Ndiaye suñu ko mënee ne régler nu mu gën a gaawee daal moom ce serait un ouf de soulagement électrification on est à 100%. pour cent bi ñu wax dëgg de remercier directeur de la Elec de remercier sunu ben dom bu nek ci ñoom Mamadou Ndiaye kemas parce que jàppale nañu dekk yépp pratiquement électrifié nañu ben amoo rek mu amagul te jël nako en charge moon ko def moy le village de Adi bok buñ ko défé dañu am 100% am nañu enveloppe ci année bi ñu génn bu 2022 bi mom lay wax ci digënté Mamadou Ndiaye le directeur de la Sénélec une enveloppe de 100 millions

poste de santé euh, poste de santé Mbayen Lyon équipement médicaments bi ñi ñëwé du tok fekk nañ fi ben bor bu 8 millions ay médicaments le ko jëlante fay ñu won pena mais bi ñi ñëwé ci 2000 non seulement ñu pena 8 millions yi 2021 mais jëndaat yëkkatiwaat sunu xaalis huit millions waat ko ay médicament donc ñu joxe ko tabax nañu case de santé bu Jinge àgg na tabax nañu maternité bu ba mbay moom itam àgg na ñi nga xam ne ASC yi nga xam ni nii ñi ngi ci commune bi ci case de santé yi ñoom ñëpp commune bi recruter na leen di leen fay fin mois bu nekk en tout cas santé ñoo ngi ciy def li ñu man dañuy tàllalaat sunu loxo parce que Taïba Ndiaye trente habitants yoon yi bari usine yi jege ñu pollution am nit ñi di feebar donc Taïba Ndiaye est digne d'avoir son poste de son euh, son euh, son centre de santé loolu mooy maintenant sunu cheval de bataille Taïba Ndiaye mu am centre de santé case yi nga xam ne ñoo ngi dans la commune de Taïba Ndiaye ñu jàppale ñu ci ñu defar ko ay poste de santé dëkk yi nga xam ne amaguñu woon case ñu fexé ba def fa ay ñaar ñetti case parce que bo dem fu melni ne ngomène ñong fay tabax actuellement ab case de santé parce que amuko ko té ab zone la bo xamné ni dafa enclavé donc walu santé lool la bo duggé ci éducation 2022 bi li ñu togg ku ci néew tabax nañu juroomi classe équipé leen duggal nañ fi lu tollu ci 150 table banc ci classe yoyu donc muré nañu ñetti école euh, bi ñu toogee ak léegi donc ci 2022 bi incha allah action sociale bi joxe woon nañu ceeb euh, euh, suukar ak tàndarma ñu ni musu fee am ñu joxe yeneen ñu ni musu fee en tout cas ngeen ñaanal ñu yàlla rek commune bi jëm ci kanam